boobaa lañ cey def après pour mu nekk contrôle pour ñu am ci contrôle dafay jafe donc bu ñu nax sénégalais yi bu ñu gëmloo sénégalais yi tamit ne amnistie Samba wala amnistie Demba wala gracier Samba wala gracier Demba dafay tax suba sunu facture yi cher woyofal baa ngi may bëgg a rey man xaw ma ndax yéen a ngi bëgg a dee yéen mais est-ce que est-ce finalement man li ma intéressé euh, est-ce que c'est pas un précédent dangereux parce que ñenn ñi sax ñu ngi jàpp ni xëy na bëgg nañ ci euh, porox ndollu ba nga xamante ne yenn faute de gestion moo tax dañuy xaar ñu moo tax man du ma du ma nettali géntu Samba mhm. xam nga man j'attends juste le document ba ñu ñëw ñu ne lan kan la lan la ñuy amnistier yan fee la ñuy amnistier ak kañ ba kañ lañ koy amnistie su boobaa dinañ xam lañ ci nar ak liñ ci narul leneen li mooy il faut que ñu xam ne assemblée nationale bi fi am mësul am assemblée nationale bii fu am mooy sénégalais yi dañ ne léegi yéen kenn dootul buur a ko bu mi foog ngeen di waxtaan document bi su ñëwee assemblée nationale dinañ ko waxtaanee lépp loo xam dañ ko dugal te du intérêt Sénégal ñun du ñu ko wote te du ñu ko défendre intérêt Sénégal rek lañuy ñuy voter Sénégal rek la ñuy défendre maintenant lépp luy participer à la paix sociale lépp luy participer à à la prise en charge des préoccupations et des des aspirations des Sénégalais mais c'est sur que ñun lool ku ñu dem fekkuñu ci. Mm-hmm. waaye lépp loo xamante ni nekkul ci loolu ñun mënuñu cee yëy mënuñ cee yàbbi mais. ñu bàyyi état état yi ñu am mais Pape mën na participer à la paix sociale et pour nekk peut-être un mauvais signal pour la bonne gouvernance mais je suis d'accord déggoo moo tax ma ne moi je suis contre la mauvaise gouvernance bonne gouvernance rek laay wax dama ne l'état du Sénégal dañ ko concevoir depuis 60 ans comme un instrument d'enrichissement illicite mooy ku ci nekk da nga jàpp ne war nga cee amee ay milliards dañ ko concevoir comme un instrument de règlement de compte une pathologie sax ci relation maanaam nan la ñuy humilier doomu aadama mais a ni ñu ko jëlee ji woon Kédougou en ak fa ñu ko fekk keroog yaa ngi fàttaliku ñoom Abdoulaye Balde ni ñu leen doon traqué au Sénégal yaa ngi fàttaliku ni mais avant même ñooñu yaa ngi fàttaliku Idrissa Seck bi ñu koy jël dugal dugal ci kaso bi après defal ko un non yaa ngi fàttaliku Mamadou Dia ni ñu ko yóbboo ci kaso bi ak yeneen d'honnêtes citoyens yoo xamante ni à un moment donné de leur vie ils ont juste dit non au desiderata de l'État wala ils ont juste voulu exprimer un devoir de citoyen tout court mais loolu laa ne tant que ñoo ngi ko bëgg. ke sama benn xarit moo ma la moo may nettali keroog mu ne ma xam nga li tax ma dugg politique ñu nag moom ñoo bokk kuréel gii di politique. Mm-hmm. mu ne ma dafa dem Tamba di installer affaire wu informatique ci benn hôpital nee na mu gis benn charrette bu agsi nee na femme bi bi muy wàcc la gis doom ji di wadd mu muy am doom bi muy wàcc charrette bi mu gis bopp doom ji nee na moo ko gis de visu mm-hmm. loolu moo tax mu dugg politique mais man loolu nan laa koy xamee di ñëw di gérer agenda politique de tel ou de tel wala soit nekk fii di def mais on a tellement sauvé la pour de politiciens dans ce pays au moment où des milliers de Sénégalais di bëgg a dee ci ñàkk di bëgg dee ci hôpitaux yi di bëgg a dee ci ci kaw gi mais man di tey jii est-ce que xam nga ne suñu géej yëpp ay cimetière la suñu géej gi yëpp ay sëkk la désert bi ay sëkk la mhm. xale yi année scolaire baa ngi nii tey jii ñi am ñëpp ñi am ñëpp a tuut sa doom du dem école publique ñi am ñëpp as tuut doo dem ci hôpital public ñi am as tuut tey jii mënoo mënoo mënoo sax doo dem sax ci suñu marché yi doo ci bëgg dem parce que sunu benn borom xam-xam nee soo bëggee dëkk soo bëggee xam dëkk nan la ñu organiser woo nee na soo fa demee rek demal ci marché bi. d'accord nee na soo demee ci marché bi di nga xam dëkk ba nañ dëkk mais demal ci sunu marché yi. loolu nag mënuñu ko am ba pare franchement ñu continuer di waxtaan les politiciens nous fatiguent dans ce pays et nous prennent en otage. te si on se c'est la phrase bu ñuy dégg ci yéen ñi nga xam ne eh, yéen a mujjee ñëw wala bi ngeen ñëwee yàggul vous caricaturez les les politiciens. Euh, yéen euh, comme si yéenay peut-être l'homme parfait yéen a baax. les messi. Euh, aujourd'hui muy yow peut-être muy Thierno Alassane Sall. Mm. certaines position au niveau de l'Assemblée nation et même sur la scène politique est-ce que opposé wu leen ak opposition bi parce que ngeen di jël souvent position yu bokkul ak une certaine partie de l'opposition. ah mais c'est-à-dire que forcément dans dans l'espace public dañ lay bëgg dugal ci benn case mais man nee naa la benn interlocuteur rek la mooy le peuple sénégalais ñoom rek laay waxal. seeni seen seeni seeni seeni bëgg-bëgg ci lay dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg su ma yéene laa am moo tax ma dugg politique yombul xam nga tey jii su ma dugguloon kenn du ma génneel ay ci benn contexte di indi lynchage bi ngay wax su ma dugguloon politique peut-être que kenn du ma saaga kenn du ma xas ma dugguloon politique peut-être que kenn du ma lijjanti damay wàcc dem tëdd sama kër jàpp sama jàmbur di commentaire ajuma bu jotee wala kii ñu invité ma ma ñëw commentaire defuma ko j'ai le plus difficile parce que dama xam ne am na lu ko gën a métti xam nga lu gën a métti tey jii ci Sénégal moment bi may wax ak yow am na ñoo xam amuñu douche toilette ci seen kër amugul man loolu moo gën a métti loolu su ma ko xoolee ma xam ne man yàlla defal na ma sutura ma xam ne jàngal nañu ma yonent bi keroog bi ko suñu borom xamalee la ne ko jógal mënatoo toog léegi am na loo xamante ni soo ko xamee toog tu es complice man je veux pas être complice li ma bëgg mooy bés bu ma faatoo ñu xam ne kii au moins jéemoon na dimbali réewam yéene rek laa li may ñaan suñu borom nag. mooy mu kàttanal ñu ak ñu ñu àndal mooy mu dimbali ñu taxawuñu ba nga xamante ni li ñu bëgg dinañ ko mën a am ci Sénégal Sénégal mën naa neex ba dàq tuq su bënn saañ ba réer a tout li ñu manqué mooy ñoo xam dañ lay fal ñu laaj la un contrat de performance ñu ñu laaj la un contrat de performance et puis loolu important li li muy wax nii c'est-à-dire tey jii Sénégal sonn mooy dañ lay fal ñuy laaj ci yow ñuy xaar ci yow un contrat politique au lieu d'un contrat de performance da ngay fii gis nit ñu ñu ko ñu ñu contrôler ko jàpp ko la mais mais dafa mel ni Sénégal ni ñoom la du tout je ne suis moi je suis totalement dans dugg politique damaa jàpp ne lii fi nekk tey am na lu ko gën loo xamante ni mën nañ ko soppi dañoo jàpp ne tey ñun muy man ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci mouvement les serviteurs ma leen di nuyu un peu partout au Sénégal li tax ñu dugg politique ñu nekk ay kilifa jàng bi ñu waree jàng toll ni ñu war a toll mat li ñu war a mat gëstu am xam-xam Sénégal et dans la diaspora ñun ñu jàpp ne lii fi ne am nañ lu ko gën te li ko gën la ñuy wax sénégalais yi buñ ñu wóoloo jox ñu li nga xamante ni moom mooy seen seen seen kóolute biñ ñu jox bu ñu ko feddalee yàlla xam na ne dinañ leen wan ne tey jii mënuñ du ñu ñee Dubaï du ñu ñee Singapour Singapour xadi colonel foofu lay daaneele Singapour dañoo dajee bëgg tabax seen réew amuñu benn ressource ñu ne léegi mais ñun amuñu ressource mais nañu waxtaan ñu ne la première ressource c'est la ressource humaine nañu miser dans l'éducation et la formation et c'est c'est le débat sur la petite enfance maanaam de zéro à six ans ce débat n'est nulle part dans l'espace public loolu moo tax mu intéressé ñu yaa ngi dégg bërki démb maa ngi demoon sur la journée mondiale du bégaiement ma leen di nuyu ñoom ñëpp mooy ñi nga mm-hmm. mais ñooñu tey ñu ci bëri ay jeunes lañ mais boo demee école doo am sax ku la mën a gunge doo am ku la mën a taxawu tey jii boo jëlee les orthophones ñi nga xam ñooy faj ku dër ci Sénégal juróom-ñett lañ boo jëlee ñaar rek ñoom ñoo ci ay sénégalais ñi ci des ñëpp ay biti waa bitim réew lañ donc loolu mooy Sénégal état Sénégal taxawuwul ay doomam mhm. loolu moo tax ñu bëgg leen a taxawu bëgg leen guddil mhm. bëgg leen a bëccëgal xam ne Sénégal mën naa soppeeku mën naa neex ñuy gërëm encore une fois les Sénégalais les mouvements les serviteurs di leen tàllal suñu loxo mhm. xamante ni ñoo ngi ci biir réew mi dinañ fekk leen fa waxtaan ak ñoom gën a dëgëral li nga xamante ni moom la ñuy def actuellement. Mm-hmm. ndax nit ñu ba ñu wuyu leen woowee nit ñu wuyu see bett nañu. waaye ñun incha allah duñ leen bett te tas seen yaakaar. ndax yaakaar dafa dee ci Sénégal ñun dañoo bëgg a yaakaaru ndaw ñi. Mm-hmm. waaye dalalaat xelu mag ñi. ndax Sénégal c'est une promesse de paix de stabilité sociale. merci beaucoup euh, honorable merci de rek. <laughs> cher du colonel. En tout cas, je suis très content. Partagé. Fatou euh. Abdou Ndiaye, merci. Merci beaucoup, Khady. Merci également, Pape. Merci beaucoup à vous. ma kook ñuy remercier également téléspectateurs yi ñu doon euh, seetaan di leen di jox rendez-vous ci seen show demain incha allah mais ne zappez surtout pas parce que euh, une toute nouvelle émission ci Sen TV moom mooy door léegi léegi incha allah.